إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bokk julit yi gannaaw ba ñu sante suñu borom subhanahu wa taala ñaan ko mu julli ci suñu yeneen ba sallallahu alayhi wa sallam sunu xutbam tey bi mi ngi jëm ci naka la ñuy def ba mucc ci noon yi nga xam ne ñoo ñu wër noon yooyu di seytaani ak ñamu bokkal gannaaw ba bi seytaani doomu aadama yi nga xam ne ñun ñoo bokk ak ñoom gannaaw way xam leen ni suñu borom yàlla day nee na seytaane seen noonu la yéen nit ñi fexe leen ngeen def ko noonu ñaan na yàlla dund ba baa bisu béy ci di taxaw lan mooy liggéeyam ci desutu dundam bay daa yawmi diin mooy ni muy fexe ba teete doomu aadama yi yóbbu leen ci safara bu ñuy tudde sair yàlla na yàlla musal ñu ci loolu ngalla way mbokk julit xam leen ni bokk na ci doomu aadama bi li mu war a gëm mooy la nga xam ne mooy kumpa suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na ñi nga xam ne dañoo gëm kumpa day ñooñi ñoom ñooy ña jub ñoom ñooy ña nga xam ne ñooy ña texe bokk na ci gëm kumpa mooy nga gëm ni amul lenn loo xam ne dana xew ci kaw asamaan ak suuf lu dul fekk ni sunu borom yàlla moo ko dogal loolu xéewal la wala loolu nekk natt amul benn agresseur bu mën a jóg agressé loolee sotti lu dul ci ndigalu yàlla amul benn jinne benn seytaane bu mën a dab doomu aadama def ci moom dara lu dul ci ndigalu yàlla naka noonu it amul kenn ku jóg di bëgg a def lu baax loolu sotti lu dul ci déglu yàlla mbokk gëm googu ngay gëm loolu mooy tax ba ab julit daa di delluwaat ci yàlla moomu doyloo yàlla moomu làqu ci yàlla moomu wóolu yàlla moomu loolee mooy dalal xelam ci ne dootul faale ci seytaani jinne dootul faale ci seytaani nit doonte ne bokk na musiba boo xam ne nii suñu borom yàlla nattoo nañu ko mbokk la nga xamee ne mooy ak taryaax la nga xamee ne mooy ay seet nit ñi dañ daan làqutu ci néeg yi di ko def ña fay dem di rocceeku di ko fa defi amma tey bi ñu yàlla nattoo li nga xamee ne nii mooy mass média yi rajo yeeg télévision yaak yeneen yu dul yooyu doomu aadama yi ci kanamu doomu aadama yépp la ñuy feeñal loole nga xam ni mooy jéem a xam kumpa googe la ñuy feeñal jàpp ne ni mën nañoo régler problème mu doomu aadama yépp na doon lu doomu aadama yi soxla la na doon lu doomu aadama yi ragal la naka noonu yi tamit jullit yi tamit daal di tamit feeñal seen loolu làquñu ko ci dara man ngaa wax réew yépp di la dégg ngay laaj la nga xam ne mooy kum kumpa la dëggal la nga xam ne mooy kumpa googe mbokk loole da ngay gis ne musiba la bu dolleeku suñu musiba yi maam ndax kat suñu borom yàlla subhanahu wa taala bàkkaar moom xamal ne bëggu ca benn waaye nag bokk na la gën a nekk musiba mooy bàkkaar ba nga xamee ne nii doomu aadama dafay jóg di ko feeñal ngalla waaye loolu mbokk julit naka lay mën a dale mbooloo moo xam ne ñu ngi xëy di wax la ilaha illa allah kenn yeewul ñu koy jaamu ko dul yàlla di wax ne muhammad rasulullah muhammad mooy jaamu yàlla gëm na yàlla wàcc na ci ñoom alquran ca alquran jooju yàlla nee na lu ca dara ndax loolu war naa yey déedéet bokk julit bokk nañu xam ne suñu téere bi suñu borom yàlla subhanahu wa taala day nee na lu ci dara bokk na ci moo tax ba mu tere ñu lépp loo xam ne dañuy yëkkati ñu jëm di yaakaar keneen ku dul yàlla di sàkku ci moom lor wala di dàqu di sàkku mu yoddil ñu njëriñ am maa nag ka nga xam ne moom moo jóg taxaw jàpp na loolu moom mën na ko kooku moom daa bokk ci ñu déclaré guerre suñu borom subhanahu wa taala mooy ki taxaw ne yàlla kat sa jaam yi nga bind moom leen li ngay def ci ñoom manit mën naa ko ba inna lillahi wa inna ilayhi rajiun da ngay dégg ñoo xam ne dañ naan li ma lay defal bu neexee yàlla moo am bu neexul yàlla it day am wallahi am na ci Sénégal ci loolu mbokk yaa ngi déclaré borom bi subhanahu wa taala guerre waaye ngal la waaye yow julit soo bëggee sa xol bi dal soo bëggee nga am dund bu tey ngal la waaye xamal ne bunt bi benn bunt la amul beneen bu ko ñaareel jógal nga daal di góorgóorlu dellu ci sa borom subhanahu wa taala borom boobu nee na ñi nga xam ne dañoo gëm ca ngëm nga bokkaale wuñ ca dara ñii day ak dal da leen ñeel ca ñii rek ñooy ñu jóg alladina amanu wa lam yalbisu imaanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun mbokk suñu borom yàlla subhanahu wa taala day mi ngi ñuy moytuloo cheytaan suñu borom xamal nañu cheytaane bëgg na ñëw yàq suñu diine d'abord waaye yàq la nga xam ne mooy suñuy jukko jafeel suñu dund tiital ñu may ñu jaxasoo di yónni ay mbooloom ñuy jinne yuy ñëw ci ñun waaye di yónni la nga xam ne mooy cheytaane yi nit yoo xam ne dana leen formé yëkkati seeni daraja xëpp leen alal xëpp leen mbooloo ba pare nag di leen waxloo ngir ñu daal di réeral doomu aadama yi comme naka suñu borom yàlla di waxee wa kadalika jaalna li kulli nabiyin aduwan shiyatin al ins wal jin yuuxi baaduhum ila baadin zuxrufa al qawli gurura suñu borom nee na musuma yu ne benn yonent lu dul moom mbooloo ba ko topp am na ay mbooloo ca cheytaani jinne yi ak ak nit ña ku nekk ngi jàngal sa morom ay wax yoo mën a jaar ba daal di réeral doomu aadama yi suñ demee ci téere borom bi suñu borom dañu moytuloo ci aaya yu bari ñu fagaru ba moytuloo mu ne ay yéen nit ñi bu leen topp fa leen seytaane jëme seytaane kat xam leen ne seenum noonu la ay yéen doomu aadama yi seen bàyyi aadama alayhi salaam seytaane ko man mene woon ba génne ko aljanna ngal la waay yéen fexe leen ba bu leen dugg ci loolu moo ko seytaane ngi nii nekk noonu doomu aadama di xëy suba ngoon ngir dugal ko ci kéeféer su dee rëcc na ko mu fexe ba taaral ci moom ay bida su dee rëcc na ko mu fexe ba taaral ci moom bakkaar yu mag yi mi ngi noonu seytaane lu mu am ci doomu aadama xeebu ko loolu nag ngeen bàyyi ci xel borom bi subhanahu wa taala ne ay waay seytaane seen noonu la jàpp leen ko yéen it def ko noonu loolu mooy lan mooy lépp loo xam ne ni mooy yàlla la xamal ne yoonu seytaane la ndigali seytaane la lan ngay noonu ak seytaan mooy dum mooyu leneen dugul loolu waaye mbokk seytaane yàllaa ko bind yàllaa ko kattanal yàllaa ñu ko nattoo waaye yàlla moomi itamit moom moo woo la nga xam ne mooy jaamam yi teg leen ci aw yoon woo xam ne suñ ca jaaree day daañ mën a mucc ci pexey seytaane benn ngoog daañ am la nga xame ne nii mooy ngërëmal yàlla ñaara ngoog xam leen ne la jiitu ci loolu yow julit mooy fexeel ba sa xol bii nga wékku ko ci yàlla amul kenn koo xam ne doyloo na yàlla wékku ci moom ba par yàlla di tas yaakaaram abadan suñu borom yàlla wax nag seytaane na ko seytaane xamal ne kat samay jaam yi ma doyloo moom amoo ci ñoom benn pexe inna ibadi laysa laka alayhim sultan wa kafa billahi wakila ca yàlla doy na ko ñuy wakkirlu gannaaw ba it subhanahu wa taala nee na jaamam yooyu nga xam ne nii day dañuy wékku ci yàlla yàlla dana leen doy sëkk ndax yàlla mooy dogal lu mu mën a doon wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu inna allaha baaligu amri qad jaala allahu li kulli cheyin qadara suñu borom yàlla it mi ngi wax heure bu cheytaane ñëwee bëgg laa jëñ ci bokkaale ci bida ci kéefér nga yëg ko sa biir xol mu ne ngal la waay gaawal muslu ah ci moom lax ko ci yàlla yàlla muy aji dégg yàlla muy aji xam lépp loolu mbokk mooy la ci gën a am solo loo xam ne xol bi moo koy def gëm yàlla gëm màggaayam doyloo ko xam ne amul benn xobu garab buy yëngatu lu dul ci ndigalu yàlla du jant du weer du asamaan du suuf du nit di jinne laa xawla wala quwata illa billah kenn mënul pexe lu dul yàlla waaye ñaareel bu mbokk soo bëggee mucc ci cheytaan ngal la waaye góor góor lul ci ndigali yàlla yi góor góor lul ci bàyyi tereen yonent bi salallahu alayhi wa sallam jàkkaarloo naa kenn ca ndawi sahaaba ya ne ko kaay ma jàngal la ay kàddu yoo xam ne nii dana la jëriñ bokk na lam ko jàngal fexeel ba wattu yàlla yàlla dana la wattu booy ñaan ñaanal yàlla kese booy dimbinikoo dimbinikoo ci yàlla kese naka la ñuy wattoo yàlla mooy yàlla jàll wa ala digal na la julli yaa ngi koor yaa ngi zakat yaa ngi yàlla tere na la njaaroo yaa ngi njabar gaa ngi ah riba baa ngi wattu yàlla mooy fu ndigalu yàlla taxawee nga jóg taxaw ca fu tere yàlla teewee nga daw ko lii rek la ñuy wattoo yàlla képp koo xam ne yaa ngi taxaw ci lii xamal na cheytaane du la mënal dara loolu mooy la yeneen ci baal yi salaatu wasalaam garanti gannaaw loolu itamit yonent boobu jàngal nañu ay ñaan yoo xam ne jurit bi heure bu ci saxee cheytaane yi dañ koy daw ca loolee mbokk mu am ca bu ca yomb lool mooy baatu bismillah ngal la way xam leen ne bismillah jurit dafa war a làqoo ak moom amul lenn loo xam ne da nga koy def ci àdduna lenn lenn du dugg du génn du lekk du naan du sol du sol du du summi du lenn looy def du dul nga la waay jiital ko bismillah rasul salallahu alayhi wa alihi wa sallam ne jaam bi day bu dee ba muy dugg ca këram dafa wax bismillah ah da ngay gis ne cheytaane dana wax la nga xam ne ñooy ay surgaam dem leen tey kat amu leen fu ngeen fanaan amul kenn kuy dugg këram ne bismillah gannaawam cheytaane du dugg ci kër googee nee na it amul kenn ci yéen ku ñuy indil ak lekkam mu daal di ne bismillah lu dul cheytaane dana wax ay surgaam sori leen lekk gi kat yàlla araamal na ko ci yéen loolee mbokk ñu bàyyi ci xel rasul salallahu alayhi wa sallam ne lii kiiraay diggante awray doomu aadama ak jinne yi mooy mu daal di wax bismillah loolu tax boo jimee ci douche ba da ngay sangu jéem da ngay faju aajoom nga la waay boo jubee douche ba waxal bismillah cheytaane yi dootuñu mën a gisati lenn ci yow lii bokk da ngay gis ne borom bi subhanahu wa taala nekk na yombal ko lool mooy loo tudd bismillah mooy yàlla nga ci ànd ak yow yàlla daal di koy barkeel waaye yàlla daal di koy soril la nga xam ne nii moom mooy cheytaane yi mbokk suñu borom yàlla subhanahu wa taala bari na lool di tiital doomu aadama di jaxase xelam waaye loolu it suñu borom yàlla utal nañu ay askar yoo xam ne nii dañoo war a ngoy ci loolu bokk na ci loolu mbokk julit li ñuy tudde ayatul kursi ngal la waaye bépp góor ak jigéen war naa góorgóorlu jéem koo jàng muy benn aaya aaya boobee da ngay gis ne képp koo xam ne taxoo na ak moom yàlla subhanahu wa taala dina ko musal yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na ka nga xam ne daa jóg di tëdd calalam jàng ayatul kursi baba suba di jot da ngay gis ne cheytaane du ko jege fenn loolu mbokk nam lay wattoo ci dal ba it la la mën a wattoo ci leneen bokk na ci loolu mbokk julit la nga xamee ni nii mooy ñaari aaya yi tëj suratul baqara ñu tudd ko amana rasul ba ba baqara jeexe yonente bi alei salaam nee ni képp ku ko jàng day dana doon lu la doy borom xam-xam yi ne dana la doy ci muslaa yi dana la doy ci askaar dana la doy ci ay tuyaaba waaye bokk it na am lu yomb lool loo xam ne nii jàpp naa ne yeyul benn julit di ko ñàkk a xam muy li ñuy tuddee mu awisa mi ngi noonu muy qul huwa allahu ahad qul auzu bi rabbil falaq qul auzu bi rabbin nas xoolal ki nga xam mooy abdullah ibnu xubayb nee na bis bay ci madina dafa am benn xiin bu tar ànd ak dund yu metti ak ngelaw loo xam ne jaaxal nañu ñu daal di jóg am ñu ma àndal ñu dem kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko yonent yàlla bi ñaanal nañu ñun ñaanal ñu ñun ko dañoo tiit mu ne leen xul ñu la ah lu ñuy wax mu wax leen ko ñetti yoon gannaaw bu mu ne xanaa xamu leen ni bis boo xëyee nga wax qul huwa allahu ahad ñetti yoon qul auzu bil falaq ñetti yoon qul auzu bin nas ñetti yoon xamal ne yàlla dana la booleeg lu lay garde amul lenn loo xam ne dana la dana la mën a loret ci ay waaye yow mi nga xam ne yaay moor nji moor njaaye faccaam sa ndigg lii fees dell ak i gallaaj suufu lal baag ay biteel seen lay mooy ah nit ki kat fokk ngay muslu doomu aadama bi fokk ngay doon koo xam ne da ngay muslu mi ngi noonu waaye bokk julit loolee ceddo la bu say maam xamoon xamuñu woon diine waaye sa diine lislaam indil na la ay ndombo indil na lay pettaaw ak i béjjéen yoo xam ne doo ca fay dara dara dara dara ca it doo dem mukk fàtte ko du réer du dagg loolu mooy lan mooy ngal la waay boo xëyee julli fajar ba pare jàngal qul huwa allahu ahad ñetti yoon qul audur bil farax qul audur bin naas ñetti yoon bu timisee nga def ko na sa xel dal xam ne asamaan ak suuf bu doon rajoxoo it amul lenn loo xam ne dana mën a yegg ci yow lu dul yàlla subhanahu wa taala dogal lii la mbokk julit war a gànnaayoo gannaaw ba mbokk julit aka bari tey jamono ji ñuy dund di jamonoy stress jamonoy nit ñi tekkalikoo nit ñi tasaaroo doomu aadama yi la ñu amoon ci vie de famille amatuñ ko lu bari ci nit ñi dañuy jaxasoo jaxasoo googu nag da leen di yóbbu ci lu nekk loolu nag mbokk julit am na benn gàllaaj goo xam ne nii day googi amul lenn luñ cay fay ca mooy mooy kaddu la hawla wala quwata illa billah nga la waay heure bu sa xel ne yar ci problème bi nga am ci sa sëy bi waxal la hawla wala quwata illa billah problème bi nga am ci sa liggéey bi la hawla wala quwata illa billah kayit yi may toppatoo jafe na laa xawla wala quwata illa billah lii may yëg ci sama yaram ci métit laa xawla wala quwata illa billah te mooy kenn amul pexe ak kattan ku dul yàlla moomu jalla waala mbokk lii da ngay gis ne nekk na la nga xam ne mooy denc bi gën a rëy bu doomu aadama di gànnaayoo ci àdduna di ko gànnaayoo ci àllaaxira nga la waay xamal ne laa xawla wala quwata illa billah mooy wane ne ay yow borom gisaane gi waxoo dëgg ay yow borom pettaa gi waxoo dëgg ay yow mi nga xam ne yaay nekk ji woo nit ñi ci la nga xam ne mooy xam kumpa waxu leen dëgg la nga xam ne mooy pexe kattan ci loxo yàlla jël wa ala kese la nekk lii mbokk da ngay gis ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam daana wax ne amul kenn kuy génn këram daa di ne bismillah tawakkaltu ala allah wala qawla wala quwata illa billah amul kuy génn këram ne bismillah bismillah maa ngi wékku ci yàlla kenn amul pexe kàttan ku dul yàlla lu dul ne suñu borom yàlla dana la booleeg malaaka boo xam ne dana la yow day ku fiita wa wuqiita wa hudiita yàlla subhanahu wa taala fegal na la lépp loo xam ne yaa ngi ko doon ragal yàlla dana la doy ci lépp loo yaakaar yàlla jubal na la ci yoonu njub su ko defee nee na seytaane yépp dañuy doon koo xam ne dañ koy daw mbokk nga la waay nañu delluwaat ci yàlla jalla wa ala suñu borom yàlla même boo nekkee président du tee nga am ay nattu boo nekkee milliardaire du tee nga am ay nattu waxuma yow baadoole bi nattu mun ta ñàkk ci jullit fokk nga am jafe-jafe xol di am jafe-jafe ci njaboot gi di am jafe-jafe ci wér-gi-yaram gi loolu yàlla ñu ko nattoo di xool ndax daan muñ muñ ko rafet dellu ci moom wala daañu saadi dellu ci keneen ku dul moom ngal la way àndal ak la yonente bi salallahu alayhi wa sallam waxoon daana wax ne ajaban li amri lmumin aka yiime way mbiri jullit jullit moom léppam rek yiw la heure bu ko yàlla bettee xéewal mu daal di sant yàlla xam ni lii ci yàlla kese la jóge xéewal ga wëlbatiku nekk yiw ñeel ko waaye fu ko natt mën a jóge mu daal di dellu ci yàlla muñ gu rafet natt woo bi wëlbatiku nekkaat yiw ñeel ko ngal na waaye bokk leen ci julit ñooñu yeneen ci baal salaam di wax yàlla na yàlla subhanahu wa taala boole ñu ca yàlla na yàlla rafetal suñuy pas-pas yàlla na yàlla sàmmal ñu suñu diine yàlla na ñu yàlla musal ci cheytaane képp koy jàppale cheytaan yàlla yàlla defal ñu aafiye fi dunia wal axira yàlla miy tegaate yàlla bu ñu teg lu mu attan lu ñu attanul yàlla miy xéewalaate yàlla ubbi suñuy xéewal adduna ak alaxira yàlla yàlla wàcce jàmm ci suñu réew yàlla na ko wàcce ci mboolem réewi julit ñi fépp foo xam ne julit ma nga fa natt fitna yàlla ko gën a xam yàlla na yàlla woyofal ko ci moom te yàlla teggal ko ko ci jàmm yàlla nañu yàlla yërëmal mboolem suñu way dawlu yàlla na yàlla jubalul mboolem suñu njaboot te ñun ñëpp ci mbaaxam ak yërmandeem mu musal ñu ci safaraam sa dajal ñu ci àjjanaam ja innahu ala kulli shayin qadir ila subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin